li ñoo tuddee discours de politique générale coow li bare na ci temps yi ñu naan discours de politique générale mais bi ci am solo sunu bopp borom moo ko prononcé ñu di ko tudde alxitaabul aali min janabil mutaali xoolal lool yàlla di def discours de politique générale wax ni nañu dajale yonent yépp ak aqtaab yépp pour ñu ñëw suivre orientation bi ñu dem dajale leen indi leen yàlla laaj jibril ni ko ana iblis mu ne ko ah, iblis lu mu ci doon mun ko may ci la bokk mu ne ko ko parce que yonent yi ñoo nekk exception ci lépp lu baax waaye iblis it moo nekk exception ci lépp lu bon kon moo yore opposition bi waaw waaw kon nag dafay jaadu mu fekkee daje ba génnewul sunu boroom waaw waaye Jibril dafa jaaxle ndax defoon na loolu warul mën a nekk mais fekk sunu borom dara tënk ko waaw yu mel noonu mooy tax nit ñi war di tey ci yu bare dégg na fan yi sax kuy soow ni yi xew ci réew meek nit ñi di wax lu tax mu Sy waxul ma ne waaw réew mi Moustapha Sy rekk a fi nekk loolu kenn mësu ko gis mais fekk na man dafa am koo xam ni moo may orienté muy Seyid Cheikh Ahmed Tidiane gis nga li mu waxoon ni bu ñépp dee wax booba noppi jot na te senegal ñëpp a ngi wax kon nag xam sa bopp ak sumtu xukmun mais bu ñaareel bi ma war a tax nit ñi gën teey mooy mag ñi dañu war a xàmmee ñaari xutba yi xutbatu alladina an'amta alayhim ak xutbatul maghdubi alayhim aw ad-dallin mag ñi dañuy natt ba foofu am na ñoo xam ne bu ñu waxee yàlla seen kàddu